الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتبارك الله نيجي كونتان تي ñëw bi ngeen ñëw di sàkku sunu xalaat ci mbir mi nga xam ne ñun jullit yëpp ñoo ko moom tabaarakallahu tey jéggulu itam maanaam yàlla ca fa ngeen ñu teg te àgguñu fa waaye itam képp ku nekk imaaman fil islaam li jaamiin minal jawaamia nekk ko ci jumaa yàlla yi di ci xutba war nga mën itam itam nag waxal islaam bu jotee mbir moomu am nag ci Nouvelle-Zélande mbir mu réy la alors yàgg na am nag maanaam ñi gëm yàlla yàgg nañu am mettit soo demee ci suuratul buruj yàlla mi ngi ciy wax lu mel noonu nit ñoo ñu nga xam ne dañu bewoon ci seen kaw ndax seen gëm ñu rey leen parce que dañaa dañoo gëm yàlla boole leen ñoom ñëpp boom loolu mooy am ba léegi tabaarakallaahu ñi taxaw di julli ñu fekkaat leen fa ndax seenu njulit ndax seenu waaye itam muy mbir mu grave ndax li tax mu grave mooy dèjà ñi koy def nañu xam ni seen seen àdduna bu ñu leen jàpp pare na loolu ku ko def sa àllaaxira moom pare nga ndax yàlla ma ko wax inna allazina fatanu al muminina wal muminaati summa lam yatubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabul xariq kon ku gëm yàlla da nga koy moytoo lor rawatina nag defu la dara nga fekk ko ci jaamu yàlla ci place boo xam ni respect la laaj màggal la laaj yëkkati la laaj léegi nag li ci am mooy ñun jullit mooy yàlla subhanahu wa taala daf ñu teel a wax ci alquran ni innamal muminuuna ixwatun maanaam ñi gëm yàlla yépp benn famille lañ ñoo bokk ndey ak baay gis naa ci benn téere mu ni axun mooy firi day firi frère mbokk waaye dinañ ko jamxe dinañ ko pluriel ixwaanun dinañ ko pluriel aussi jamxe maanaam def ko pluriel ci ixwatun gis naa ci benn téere mu ni ixwatun kenn du ko def pluriel ci ax lu dul bu fekkee ni ñu bokk ndey ak baay lañu ashiqa lañu yàlla ni nag ñi gëm yàlla yépp ñoo bokk ndey ak baay innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum na ngeen defar seen diggante ak seen mbokk yéen bokk ndey ak baay nit du seetaan kum bokkal ndey ak baay kon gëm yàlla nekk ci àdduna rek moo keneen beneen jullit bu gëm yàlla ñoo bokk ndey ak kon bu dëj amee ca Nouvelle-Zélande waroon na feeñ ci Sénégal ñun ñëpp ñu nekk ci dëj waroon na feeñ ci senegal ñun ñëpp ñu nekk ci naqar waron na feñ ci bépp fépp fu julit nek dans toute une dans toute famille musulmane ni nek nañ ci dëj li ki nga xamé ne bu un membre de cette même famille nekkon ci dëj lolu nak bu fekkee ni amul dafa fekk manam ñun xamaguñu suñu bop ba tey te yalla rappelé nañ ko ba tàyyi ci alquran lolu sax motax bo démé ba ci sunu tariqa yi mu waron nek lo xamné kenn du ko extérioriser du am ay alaamaat zahira baxane yoo xam ni da nga koy sol ñu xam ni lii nga ndax loolu dafay diviser dafay nekk rek askaran car maanaam ay jaamu yàlla yoo xam ni da nga koy def boo génnee nuroog sa moroom ngeen ànd mais du doon loo xam ni dafay nag luy tax ñu xàmmee la xam ni kii ci biir groupe la xam ni ci groupe la yooyu yëpp nekk ay déviation yoo xam ni tax na ba léegi ñun xamuñu yàlla ni ñi nga xamee ni dañuy empêche dañuy tooñ di bàyyi empêcher nit ñi ñu dund ci jàmm ce qui empêche aux gens de vivre en paix et de pratiquer librement leur religion yàlla ne na ñooñu nañu leen xeex yàlla waxul sax an yuqtaloo waxul nañ leen rey mais dafa ne an yuqattalu xatta la mooy par exemple ñu digle pour ñu rey leen ñu pourchasser leen deuxième mu la xukm boo xam ne ci arab mooy an tamur bi qatli ñu seet ñu seet leen fu ñu nekk rëbb leen rëbb leen wëri leen gis leen jàpp leen rëbb moo gën a foor sax alquran ni an yuqtalu bal an yuqattalu la yàlla wax ay an yumara bi qatlihim ñu wër leen seet leen jàpp leen rey leen ndax ñooñu ñooñu seen dund warul ci kaw suuf dañuy empêcher nit ñi nekk en paix dund en paix kon fa tabaarakallahu axsanul xaaliqiina loolu nag pour mu mën a am foog jullit yi am taxawaay bu rëy su leen loolu dalee seen mbokk waa àdduna yëpp xam ni tooñ bi yaatu na yemul Nouvelle-Zélande yemul rekk ca place bañ ko defee mais tooñ nañu jullit yëpp te tooñuñu jullit yëpp bépp nit bu bëgg mbaax ci kaw suuf bëgg jàmm ci kaw suuf tooñ nañ la ndax alquran diina jàmm la bañ na ko ba yàlla ni sama diina ji sax bu ko kenn imposé kenn laa ikraha fi diini xat tabayyana rushdu min a xëy dëgg leer na réer leer na woote leen te bu leen imposé kenn yàlla bañ na ko ba ci alquran mu ne bu leen saaga sax ñiy jaamu ay ay ay idole jël ay bant di ko yat loo xam ne du ak i xeer du sax yàlla bu leen leen saaga de ndax bu ngeen saagaa seen loolu day tax ñoom ñu mer delloo leen saaga bi te bu boobaa man la ñuy saaga moo diine bu la respecté loo ba ci ki nga xamee ni mi ngi jaamu xeer waaye daf la jàmmal kooku danga ko war a jàmmal yow itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan tere qatlul muahid mu ne képp koo xam ne da nga rey koo xam ne muahid la mooy mooy comme ñun rek un chrétien qui vit avec nous qui accepte de vivre avec nous en paix ñu bokk ay ay pacte de paix yu ñu yu ñu régir nga xam ne boo ñëwoon këram mu lalal la deram mu lalal la der nga julli mu may la ndox nga jàpp kooku yonent bi salaay salaam nee na boo ko songee boo ko reyee injustement àjjana du la xeeñ xetu àjjana du la xeeñ kon jullit du doon mu ko kuy tooñ bari na lu ñu jiiñ jullit yi ci àdduna ba nit mën leen a bañ di def lu la neex te fekk na du dëgg donc combattre lii du am yemul rek ci punir ñi koy def mais aussi ñiy diaboliser jullit yi aussi nation yi nga xam ne dañuy diaboliser islam ñooñu aussi jullit yi war nañ taxaw wax ak ñoom ba ñu bàyyi loolu ndax islaam diine jàmm la jullit du kuy tooñ jullit garab xobu garab sax du ko witt te du ko dagg te ko jullit rab sax daf koy jox àqam gis nañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni yàlla dugal na aljanna jigéen boo xam ne am nañu wax ni sax makisaat la woon am nañu wax ni sax jigéen bu daan dunde nu ko neex la woon waaye fekk na xaj bu mar bay bëgg a dee mu mu wut ndox jox ko mu naan wàcc ci ab teen wut ndox jox ko mu naan ngir sauver xaj ba yàlla dugal ko ci aljanna kon boobu yonent segam ixtiraam yaani kalb maanaam teral teral ab xaj rek sab yonent a ngi naan mën nga ci dem àjjana boobu yonent kenn du ko gëm nekk koo xam ni da ngay song doom da ngay tuur deretu doomu aadama nu la neexee loolu du am mukk ndaxte xaj sax ñi ngi lay wax ni mi ngi lay wan ni la am na jigéen bu yàlla dugaloon bu yàlla dugal aljanna te jigéen bu daan def lu ko neex la ndax dimbali gi mu dimbali ab xaj wa tabarakallahu axsanul xaaliqina mu ne yàlla dugal na nit safara ndax dafa xiifal muus maanaam xiifal ab muus ba muus ma dee ndax xiif yàlla dugal ko safara kon kon yàlla fa tabarakallahu jullit moom du tooñ mukk ñi ñuy wax ne dañuy dañuy dem di rey nit ñi ñooñu nañu seet lan lañu xanaa jullit boo xam ne boog danga ko def lu metti loo xam ni mu réagir bu boobaa mettit boobu aussi yow mi ko ko teg danga ko war a seet ndax rab sax nag boo ko boo ko sonalee mu fippu waaye bari na lu ñuy jiiñ al islaam te du is te jullit yi nañu seet lu doon bari na lu ñuy ñoo koy def pour que is pour diaboliser l'islam et les musulmans islam mooy religion boo xam ni jàmm moo ko tax a jóg képp ku ko jàmmal sooy sa diine ba ngay du ba ngay dund te di ko te di ko pratiquer à côté yoonam nekku ci du la ko xañ boo doon def lu bon te nëbb ko sax yoonam nekku ci waaye lu bon da nag boo ko bëggee fisal yaa ngi tooñ ñi ci des bu boobaa dañ naan sa lu bon di nëbb ko am nañu droit réagir ndax boobaa yaa ngi yàq sunu doom comme ñu bëgg a jóg nii ngóor jigéen nag mën nga ko defee nu la neexee bu boobaa déedéet sañ nga ko sañ nga tëju def ko de bu fekkee ni ko bon nga ndax boobaa sa ak yalla la mais boko bëggé manifesté nak nit ñi duñ ko nangu ndax da nga yaq suñu société da nga yaq suñu doom kon fa tabarakallah ñun julit yépp ño waron jog mettit lu ko yaram yonent bi dafa ni ñun ñëpp ka jasadin wahid dafa ne al muslimuna julit yépp buñ leen doon sét mu ni ka masali al jasad al wahid comme un seul corps bu ci ben baram metté tout corps bi da fay am fièvre suñu température bi corps bi yépp lay japp mooy buñ ci gaañee benn jullit fu ñu la mën a gaañee tegalu metti ci àdduna ñépp la war a metti man bu dara xewee maa ngi jégalu man bi man bu dara xewee ci ci jullit yi ci àdduna su fekkee ne maanaam yëguma tiis bu rëy ci sama xol damay damay yëg ne maa ngi ci bàkkaar dama je m'accuse personnellement may xulloo ak sama xol lu la dal lu la dal ba nekkoo ci tiis te sa sa mbokk mu sori donte xamoo ko mu ngi ci tiis jullit mooy ki nga xam ni même ki dul jullit bu ñu ko bu ko xañee àqam mu metti ko asamaan ak mbokk boppam am jullit kon ñun ñëpp dañu war a jóg am na fi jóg bu ñu jógoon ci xew-xew bu amoon bu ñu jàppee jullit yi di leen ko def ci yeneen place ci àdduna mais bii niñ ci war a taxawee dafa des na gën a waroon na fekk ñu génn àdduna bi yëpp déggunu ñu jóg taxaw ci aalamul islaami bi yëpp bind wax ak nation yëpp ni lii na fa war a dakk comme Charlie bi nga xamee ni defoon nañu lu mel noonu ni nit ñu jóge woon moo tax aussi dakk na léegi def dellu nañu ginnaaw wàññeeku na bu baax ndax kenn amul droit nag attaquer l'individu di di jéem a ñaawal la nga xam ne amul lu moom yonent yàlla Muhammad pour ñun dafa rëy dafa rëy kenn waru ko fawe alors ku ko bëgg a fawe kenn du ko nangu kenn du ko nangu ci àdduna loolu dañ ko dañ ñu ko war respecter comme nous autres nous respectons les autres fa tabarakallahu loolu dafa war jullit yëpp bu ko defee weesagul jullit yëpp war nañ jóg am ci taxawaay ba loolu dañ ñooñu ko def aussi ñu demander à ce que la peine capitale leur soit appliquée bien sûr après enquête bu enquête bi demee ba leer pour pouvoir découvrir lépp loo xam ne na ci ginnaaw ndax mën na ne du benn nit rek de def pour dévaler. c'est pour cacher ce qu'il y a derrière donc comme qui on l'a retrouvé c'est une personne retrouvée vivante muy dund nañu ko téye ba enquête yooyu état boobu ñu demander leen ko exiger à ce que mu leer bi ñu demee ba mu leer képp ku ci bokk ndax crime képp ku participer ci joxe ordre ci tëral ko nga nekk complice yaa ko accomplice crime ba yenn bokk àtte ñooñu ñëpp ñu exécuté leen ndax yàlla dafa ne ñiy def ñii tee nit ñi nelaw ci kaw suuf doo mën a julli ci jàkka doo doo am jàmm exercer sa religion ni mu waree kenn dootul kenn àdduna bi yëpp dootul nekk dëkku jàmm yàlla nee na ñu leen reylu on a dañ leen demandé ñu chercher leen rey leen bu ñu leen jàppee aw yu sàll bu sàll bu mooy ñu jàppale wékk la fu mel ni place de l'indépendance une place publique wékk la fa fital la rey la ku romb ak sa kaar seen nit kii mooy ki demoon ci jàkka ji rey nit ñi nit ki keneen ku ko def nii lañ lay def wala ñii ñooy ñi fomante woon ànd sant nit mu def loolu ñu rey leen ñu ñu ñu wékk leen loolu mooy salbe pour ñu xam ne lu grave la def du ñu la rey rek yem ci ñun rey nañ ko dañ lay rey wékk leen wekk la ci place publique ngir que loolu kenn bañatu ko def ndax ci loolu ci la dund àdduna nekk ndax ñu ngi nii benn nit bu ñu bàyyi ci lu ko neex reyandoo euh, maanaam une presque une cinquantaine de personnes 49 personnes périr yoo xam ne defuñu dara lu dul di jaamu yàlla boobu personne tey ji amatul droit à l'existence amatul droit à la survie tout beneen nit bu nekk ci ginnaawam itam di def la même chose kooku amatul amatul droit ci dund amatul droit ci ñu bàyyi ko fi muy nekk bu ko defee itam àdduna bi itam war nañu seetaat ni ñuy jaay muy Amérique di feneen fu mënti doon ci àdduna arme yi nañ ko bàyyeek militaire yi alors ñi dul militaire les quelques rares personnes yi nga xam ne seen sécurité xëy na am na lu mu laaj ñu seet nu ñu ko organiser te te limiter type d'arme yu ñuy yore parce que tey jii kii am boo gisee tiir yi da nga xam ne arme bi mu yoroon semi automatique la te mooy une arme boo xam ne boo tiiree mooy mooy chargé boppam ci saa si dangay mën a tiré waat ci saa si la arme bi mooy chargé waat ci boppam ci saa si nga tiré waat boppam ci saa si ndax bu doon arme boo xam ne du semi automatique kon kon kon le temps que muy chargé boppam ak yu demee noonu loolu yëpp mën na gën a yeexal force bi bu muy def bu ko defee loolu itam du toute arme la ñuy la ñuy la ñuy yombal pour nit jot ci loolu itam war nañ ko seetaat dans le monde entier war nañ fexe ñun jullit yi ba lu xew ci àdduna ci benn jullit ci àdduna nekk kaawu jullit yëpp war nañ fexe sax ba injustice yonent bi dafa ni na ngeen fexe ba seen mbokkum jullit ngeen ngeen ngeen wàllu ko maanaam soyez à son secours moo xam mu tooñ moo xam ñu tooñ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni bu ñu ko tooñee kay xam na niñ koy secourir mu secourir mooy ñu wàllu ko fexe ba ki ko tooñ ñu ñu teg ko àq fexe ba téye loxoom ba dootul defatu lu mel noonu yu mel ni dootul am ñu ne waaye waaye bi ci des kay la ñu xamul nan nañ koy wàlloo bu tooñee mu ne mooy ngeen empêché ko mu tooñ donc jullit bu tooñee jullit yëpp dañu war a taxaw ni lii d'accorduñ ci bu mu am bu ñu ko tooñee itam dañu war a taxaw ni lii d'accorduñ ci bu mu am ndax islam aslama bi signifie sa soumettre à Dieu nga xam ne dañu ko dañu ko jox tur woowu mais turam deug bu ko sété ci islam jamal nit lay firi ndax salima moy moy moy être en paix aslama c'est accorder la paix à l'autre ndax 4e forme ci arab bobu sens la am mi ngi melni naja bi signifier mucc anja moy nga fekk nit nga fexé ba mu mucc kon ko xamni sa diine ci sa bopam muslim moy participe actif bi moy ki nga xamni day boko ko rek ak yow jàmmal nga ñëpp tu accordes la paix à tout le monde tu deviens une personne boo xam ne yow yaa yow yaa tas jàmm ci àdduna kon jullit mënta doon defkatu lu ñaaw mukk ci àdduna maa ngi euh, ñu baal ma ma wax benn parenthèse dama romb benn xaj maa ngi jéggulu sax nettali bi benn benn xaj ci buntu suñu cité ma ànd ak sama sama soxna nettali naa ko ci jàkka ji ci xutba ma ànd sama soxna yaakaar naa ne laa ànd lool xaj bi dafa am melo bu mu nekk ci moom ma bëggoon ko wax ni ko xaj bi de bëgg a tudd melo bi ñimewuma ko ngir ragal bu ma tuddee melo bi yàlla bindal ma bàkkaar ma ma am ci crainte ba tudd ma melo bi ba léegi bu ma koy nettali sax dama ko damay tiit damay tiit alors su dee jullit boo demee ba xaj sax boo ko rombee melo bu nekk ci moom sax doo ko ñimee tudd kooku doo ñimee sànni xeer xaj bi wala nga di ko tooñ loolu mooy jullit jullit mooy ki nga xam ni su ko ñëpp doonee ah ñay tooñ ñeneen lay doon mais jullit du tooñ mukk nañu yi ñiy terroriser ñiy wax naan jullit yi ñooy tooñ ñooñu ñoo gën a terroriser jullit yi fekk na julit jullit nitu jàmm rek lay doon jaamu yàlla waaye nag boo ko tooñee nag mu jóg ndax tey Charlie yi bañ fi jógee man mi bindoon naa lu mel noonu waxoon naa ne qum wa jaahid taahan nabiyu mujaahid mayitun fil yi man lam yu jaahid waaye nag leeral naa ko nag ci biir ni jihaad du jël arm rek jihaad jóg kaas wane ni lii war na deñ jigaat wane wane ni li lu bon la na ngeen nañ ko bayyi li ñuy def lu bon la nañ ko xex bam deñ nañ ko ndax ndaxte jihad moy fournir effort tout simplement pour dindi lu bon su fekkee ni sa lameng la mo gëna a baax boko ko def ci sa xam-xam mo gëna a baax bu fekkee ni da nga dem bo xexul nak du deñ mukk bu boobaa nak xex dal di jot mais loolu ci xasida boobu ma bindoon te bu yàgg laa ko bindoon te ci temps yi Charlie yooyu laa ko bind xum wa jaahid jógal yow jul jóg leen julit yi ngeen def effort ngeen jihaad jihaad du du arme rek de taaha nabiyu mujahid sunu yonent bi dafa jógoon di def jihaad mayitun fil qubuuri man la yujahid maanaam képp ku jógul défendre sa bopp ci wax ba pee am ci kaw suuf ci woote dëgg jihaad dëgg mooy woote dëgg ba kalima bi wàcc wàcc ca màkka épée taxul woon arme taxul woon mais woo nit ñi ci yalla ndax bu nit ñepp gëmee yalla ñepp bax àddina nek en paix si tout le monde est croyant le monde vivra en paix parce que tout le monde craindra de faire du mal et ce sera le règne de la paix absolue waaye su n'y a kenn du croyant le monde ne vivra jamais en paix wa tabarakallah li limay tejé dal fa tabarakallah mooy li ma woote woon rek d'abord damay jëkk a woote vers l'humanisme maanaam que que toutes les personnes humaines se respectent mutuellement euh, xam ni ñoo bo euh, nit ñëpp ñoo bokk nit ku nekk respecté sa moroom rawatina rawatina nag jullit ak jullit ci mbokkam ak tarixa ak tarixa yooyu nañ ko nañ ko xam ni c'est des pratiques internes fa tabarakallahu jullit bi aussi na respecté son prochain chrétien son prochain animiste ki nga xamee ni la muy pratiquer mi ngi koy def te xeexul ak yow jéem yaa dindi ci li nga nekk na prêcher nag na ku nekk am la liberté de prêcher sa religion nit yàlla daf ko jox xel alors pour pour mu xool bu ku ne prêcher sa religion euh, les personnes nit ñi am xam ne am nañu xel am nañu xam-xam dinañu xam lan mooy dëgg ndax dëgg moom ku ku ubbi sa xel rek di nga xam mooy lan bu ko defee loolu mooy prêche boo xam ni à la hauteur maanaam des valeurs humaines la mooy nit ku nekk sañ a jàng alquran sañ a jàng leneen man boo ñëwee ci man maa ngeeg di ko xool eh, di di di ko étudier fa tabarakallahu man ci discuter ak ñi nga xamee ni dañuy yor bible eh, di dugg ci kër yi man ci discuter ak ñoom am na ñoo xam ne bañ ñëw mujj gi bu ma leen toog loo sax duñu nangoo toog dootuñu nangoo toog fa tabarakallahu axsanul xaaliqiina jullit yi noonu lañu ñu war a def xam ni benn loxo lañu sunu yonent nee nañu dañu war a denk yàdd yadd mooy dañu ne war a nekk benn force unique force boobu nag du pour gaañ kenn mais pour ñu aussi bàyyi ñu xel aussi bañ ñu tooñ ndax nit ñi tooñi metti na trop wax dëgg yàlla lii am fële metti na trop ñun tam nag su suñu yënguwul dañu defe ni ñun benn force nekku fi fekk ne dañu baax rek dañu baax rek te jaaxle xamuñu ni ñuy def te bëgguñu yëngal àdduna kon waa àdduna aussi ñu respecté jullit yi